fu mu sukkandiku daal di wax ne diw dañu ko rey est-ce que nekk na mbir moo xamante ne ni euh, mën nañ ko def te dara lu ci fekk ci euh, plateau télé comme ni mu ko defee kaawu meurtre. moom journaliste la ah, am na droit quand si. na droit wax si mm-hmm. man man man euh, su ma amee possibilité bi par exemple. Mm-hmm. maanaam dagg sama billet. Mm-hmm. dem France. def sama enquête. def si dossier. bu liggéey lay def non. def ci dossier am ci loo xamante ni loolu xam nga même Adama Gaye en tant que journaliste mën na dem ngay collaborer ak justice mm-hmm. parce que justice lu muy def enquête lay def yow yaa ngi def enquête c'est-à-dire ku ne accès technique mm-hmm. l'enquête man su ma demee tey euh, yow ñu gendarme euh, yi daa bëri mm-hmm. léegi yow le fait ba nit ki balaa muy jógee ci fan la nit ki nekkoon balaa muy ñëw ci euh, li ñu tuddee institut médico légal bi ko jógee fan la nekkoon fan fu mu nekkoon fan la daanoo. ba mm-hmm. wala moom fan la nekkoon ba mënul yóbbu boppam. moom fan la nekkoon ba mënul yóbbu boppam. te ci yóbbu ko foofu. ci loolu Thioune journal bi nga xamante ne ni euh, gis nañ ko fi keroog. Mm-hmm. mu indi euh, thèse suicide. intelligence magazine magazine waaw intelligence magazine. waaw loolu aussi dafay indiwaat euh, beneen mbir. comme li ngay wax bëri na donc si si Adama li muy wax boo si sukkandee ko bu dee loolu mu wax. c'est contraire à ah, suicide suicide ak ñu laa rey yow sa yëfu bopp yow yaa jël sa décision bopp mm. dañ laa rey mooy nit moo la fexeel ñaa xam ñooy ci différence donc am na bu ñu nekkul dëgg lu mm-hmm. dëgg mais dama ne man mii su ma jógee fii Sénégal dem Paris mm-hmm. mën naa ci def enquête bu rëy rëy boo xamante ni procureur mën na mën na ma ëpp moyen de mm-hmm. waaye mun naa ci am loo xamante ni su ma ko waxee fii émission une heure du jeex parce que nag dafa doy. dafa am loo xamante nit yi war na ko xam maanaam moom ban ban jour la jógee fii. Mhm. ak lan la doon def foofu. yaa ngi dégg lañ gëj lañ ko dégg famille yëpp xam nañ ko seen ku ne sa mbokk yi am na koo xamante ni lu métti métti di wax ak moom. Mhm. léegi kooku kan la ko mujjee kan la mujjee wax ak moom en plus monsieur euh, le ministre fan la nekkoon ci laata muy jógee fi nga xamante ni fu la nekkoon foofu ba mu daanu naan en tout cas ba mu décédé. diggante boobu noonu di tax tax tout ce temps là ñu toog dégguñu ko. te pare mm-hmm. tout ce temps là famille aussi mais attends soxna si. Mm-hmm. ah Adama Gaye daa am fii di wax mais dama ne. am na ñoo xam ne boo la laajoon fii bu dee procureur du leen wax dara ñu wax la lu bari ah est-ce que xam nga loolu. Mm-hmm. ñu wax la lu bëri. la dame on dit que astaghfirullah le le le la ci fu muy nekkoon ñu ne la deful levée du corps. levée du corps defuñu ko. levée du corps man mii tey su ma demoon France ma am fa un mois yàlla tere ma décédé fa am naa mbokk am naa xarit dinaa am xarit yoo xam ne dañu may taxaw levée du corps. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. ñu tekkiwul dara sax communauté bi rek. communauté waxuma laa waxuma laa koo xamante ni du sénégalais lambda. Hmm. mais yow da nga nekkoon ministre de de ministre. nga nekkoon ministère de souveraineté ci Sénégal. Hmm. ba pare waxuma la laata nga fay doon mais le monde des finance dañ laa xam. ba pare yow fi nga ne réew boobu noonu. Sénégal nekkul euh, doomu Sénégal du du du koo xamante kenn xamu ko parce que y a le consulat y a l'ambassade loolu mooy seen liggéey cest à que boo gisee sénégalais bu nekk ci situation yu mel noonu li ngay njëkk def réflexe bi mooy appeler les autorités de l'ambassade ou bien les autorités consulaires du Sénégal à Paris c'est aussi simple que ça loolu yëpp amul. léegi loolu c' est des zones d'ombre cest à que Adama Gueye par exemple si là parce que nee euh, na certainement mënul toog rek am information bu dee dëgg la day dem toog ñu koy indil wala mu dem wëri ñun du ñu dara mais des nga toog fii ay nit di la envoyé affaire wala ñu jox la ay mm-hmm. document des fois doo ko mën a wax fii mais après da xam ni mooy loolu nag yaakaar ne yow euh, loolu mooy tax toll si niveau d' boo xamante ni mm-hmm. yenn yi sañuloo ko wax mais da ngay xam noppi léegi nag moom s'il a des informations que nous ne détenons pas wax le procureur c'est une bonne occasion pour lui mu mu délivrer ko ko mu wax ak moom si loolu c'est-à-dire que man quand je quitte ici le Sénégal pour aller en France pour affaire boobu noonu mun naa collaborer ak justice bu Sénégal mun naa am loo xam moom amul ko après ma ma recoupement lu nekkee en pleine en instruction dossier bi génnagul ma liggéey ak justice collaboration ñu nekk ci coopération teg ci télé bi di ko wax loolu moom sëñ bi loolu na bokk na loolu c'est une violation du secret de l'instruction parce que le dossier est pendant donc amoo droit wax ci sinon boo ko waxee rek ko yàqal mhm. dañ ko yàqal maintenant puisque Adama Gaye moom bon nañ ko bàyyi mu xool 16 heures lañ ko woo nañ xool fii ak 22 heures <laughs> fii ak 22 heures ñu ndax day ñibbi wala ça oh, <laughs> dépend. mi ngi noonu de toute façon moom Adama Gueye euh, dina wuy ji euh, bu 16h jotee ca division des investigations euh, criminelles dañuy ñëw ci leneen mu di rek. mais mais ci foofu. boo ma mayee xam nga. man li man li cuun wax tuum dafa doy waar nag. tuuti joomaay xaw ma lan nag ma loolu la bëgg a wax. sous sous aux urgences. admis aux urgences ça veut dire qu'est-ce qu'il veut en tout cas. jëm ci liggéey bi moo tax. liggéey bi lay wax ñu ngi koy. at mi au urgence maanaam liggéey bi lay wax quoi. farata ji ak mais ñuy lire la aussi. maanaam ñuy commenté ngeen xam ne. loolu ay naan ñuy titré ñooy ay journaliste la dañoo am méthode. méthode bindee bu dëgg. li ñu bindee ak yow li ngay gis. keroog keroog def nañ ma ko daal di bind mu daal ne Moustapha Ba dafa xaru saa wolof nangam. <laughs> xam nga loolu dafa xaw a doy waar. mais nit ñi tamit waaw nit ñi tamit dañoo war a xam ne nit ñi ñu mën a mën nañu liirantu nii rek mais. Mm. maanaam point yi li ñuy wax tombarka. Mm. xam nga dafa am li ñuy wax tombarka mooy deux points. Mm. wala jimbe trois points de suspension wala tomb tomb xos tomb laaj tomb jalu yooyu yëpp dafa am solo dafa am lu muy tekki. léegi nag nit ñi am na loolu la ñuy wax les doggamtal moom la ñuy wax les ponctuations les ponctuations da technique la booy jàng pour xam ne lii boo gisee nangam ak nangam. mais loolu nag ñun jàngalu ko suñu làkk yi loolu la ñuy wax doggamtal yi. te dafa mat a ràññee daal xam naa loolu mooy tax. Mm-hmm. bon xam nga cuun. Mm-hmm. Euh, sànq bi nga naan am na ñoo xam ne li ñu waxoon xam nga tey ku mel ni cuun. Mm-hmm. yow war nga euh, xam. ñooñu yow nga jàpp ne boo leen laajoon nga dem laaj ci en tant que journaliste. Mhm. d'investigation ba pare indi ko ci penc mi. parce que yéen dañu leen a soxla pour ngeen enquête enquêteurs yi li ñuy enquête loolu mais fii da ngay gis ay ay anciens procureurs France dañuy mujj nekk ay chroniqueurs judiciaires wala ñu nekk par exemple comme complément d'enquête enquête exclusive ak yooyu yooyu yooyu boo gisee ay anciens procureurs ay anciens commissaires voilà comme Kaaw Pape Sané. maam nga xam ne enquêteur la woon loolu moo tax liggéey bi muy liggéey ci après nekk reconvertir nekk journaliste daf gën a xarañ mais noonu it la mën a amee événement bu am comme lii xam nga ñun suur début ñun baat bokk nañ ci ñi ci njëkk a wax donte ne bi ma ciy wax man xam man nag dee fi mu yóbbu nit ñi la ma yóbbu man dama jàpp ne man à tout moment man na maa dee. man lu gën a naturel li may xalaat rek mooy ragaluma dee quoi li may fekki laay kii te yaakaar laa ciy am beneen bi mooy am naa état d'esprit boo xam ne am naa ngorug yàlla moom. bi ma xamee ne moom ma sàkk dama koy jaamu su ma deeyee nag mu def nu ko neex man awma ci benn problème mais euh, nit ñi pour nga éclairer leen xam nga man benn fa benn fee mas na fi am mais dama jël sama responsabilité parce que dama gis ni ñu ko traité neexu ma ma gis ay ay ay ay même ay journalistes di dawal sentimentalisme mooy kaaw may mën a ndur fay bi ma déggee ku mel ni moo du Awa taxaw ne eh, eh, li ñuy wax instinct de survie la doon def mais loolu daf ma frappé ma ma xam ne waa li muy wax du dëgg day fen mais ma taxaw carrément dafa ma jaral ma dem jël seen benn naataango euh, Fatima Kide jox ko saak parce que lu tax ma mën a def loolu parce que def naa nag comme benn aar boo xam ne may na ma comment bu dee dañuy agressé nit bu ñu jëlee saagam comme fii ñu wax ne nga ne ma le moo instinct de survie ñu ne fii lañ ko jam deret ji di génn te nee na ma instinct de survie na mais man saa wolof dana xam ne instinct de survie bu ko nit ki dee def bu ñu lay jam entre sa fii ak fii fii mu rek moo mën a dagg mais nekkul fii nit duñ la jam nga naan mais bi ma ko démontré xalaat bi ci nit ñu amoon yépp dañoo amaat beneen xalaat même la la victime luy même pare na ma mere ma ci ñu ngi dajee ci benn Euh, DG keroog bi ma tax taxawee ci ginnaaw ayib dafe mi ngi ma topp naan ma ngeen am fit lu leen neex wax nit ñi nangam nangam ma ne ko noo xaaral bañ pare biñ paree ma ne ko nga ne la dafa daw débat bi mais li mu bëggoon mooy xaj na ñu nekk ci kii mere na ma pour bëgg après créer boucan wala affaire bi mais dama lànk li ma doon def dama ko def defuma ko parce que dama ko contre ku ko naw laa parce que dama xam ne ni mais fee yi ma jox ci moment boobu ñu koy waxee parce que liñ bëggoon mooy farale ko waa Pastef xaw ma dañ ko agressé wala nang mais li ñu wax ne noonu la demee wala loolu loolu yanuwul maanaa li ci yanuwul maanaa dama ko dindi sànni man yàlla xam na ne affaire Moustapha Ba bi bu ma ci xamoon lu leer. Hmm. xam ne nangam ak naam fii laay toog wax ko. procureur bu la woowee nga jox ko li nga li nga ci li nga ci yor parce que da nga toog c'était pour une bonne cause te suñ borom dafa am loo xam ne. Hmm. pour man daf ñu sas ñun ñëpp cas bi lu am la yaa ay ay ay ay siècle ci ginnaaw. suñ boroom wax ci mu leer nañu wa is xataltum nafsan fa daaratum fiiha wallaahu muxrijun maa kuntum taktu taktumuna yéen a ngi rey di ko giñante waaye yàlla dana ko leeral li ko yàlla di leerale mooy xewal gi yàlla indi mm-hmm. muy ay autopsie def ci xelu doomu aada yi mu yi bind bindaale ñoom ci suuf si wala ci jaww ji wala ci nature bi wala ci garab yi ñu mën cee jële loo xam ne danañ ko mën a xàmmee xamee ku rey kii parce que na mu meloon ci jamono yonent yàlla Moussa mais yàlla benn appareil la benn nag la jël rek genn nag bi mooy appareil bi ñu bàcc waa néew bi jóg léegi nag booy xaar <laughs> benn nag wala waa ji nga bàcc ko laar wala nangam nag doo ko man parce que yàlla jox na la ay technologie yegg na fenn fi Mm-hmm. yàlla mënu laa jox portable solileer téléphone jox lay appareil radioscopie wala nangam nangam ba pare ngay toog naan naan yàlla alu wala ngay wax bu njëkk dañ la daan wax naan suñu kii wàll yi dañ daan bind seen morom suul ko ci suuf keneen jot léegi nii wàllu yi bu ko bëgg a def doo ko mën yow yaa ngi am ay bultuf whatsapp am whatsapp ak <laughs> kii yoo pare di fontoo yàlla naan <laughs> da ngay bind day nëb <laughs> maanaam jamono yàlla dafa pare ci àdduna ñun créé wuñ dara lépp dañ koy découvrir mais bu gaa yi ragal débat bi man damay encouragé Adama Gaye bu fekkee ne am na ci lu am bu demee ci procureur bee amul caaxaan ne bu ko joxee ay ay argument wala nangam day jël rek dolli ci bu fekkee ne daf ko wax pour tappale mag ah dafa yendoo moo a yendoo loolu leer na mii noonu démb ci conseil des ministres bi la ñuy dem ñu gis président Bassirou Diomaye Faye eh, comme ni mu koy defee daldi na ko présider mais également eh, féliciter eh,